naaw nuyoo bi ñu jaajëfal leen baax si ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bi di Buzz Sénégal ak di dal leen ak jàmm kii ngeen di gis nataal bi ni kenn dootu leen ko nettali kii nii moo di pam jaay bu wal fa Walfadjri moom mii nag yëkkati ay kàddu yoo xamante ni ku ko dégg daal di dal sa nopp moom mii daal ginnaaw bi nga xamante ni nekkoon na si prison bi ginnaaw bi nga xamante ni génn nañ ko may ko liberté provisoire wala may ko liberté ak contrôle judiciaire maanaam moom mii nag génn nag démb fi nga xamante ni moo di ci wal googee yëgati ay kàddu yoo xamante ni ku ko déglu da naan ndax kii nii Pam Ndiaye la wala déet moom moomee nag nekkuloon fa avocat ki nga xamante ni moo di état bi nekkuloon fa avocat ki nga xamante ni moo di général Moussa moom mii nag nee na général Moussa Fall moomee lépp loo xamante ni moom lañ koy juum ji jiiñ daal dara dara si amul dara nekkul si. moom moomee nag nee na xam na si lu bare bare bare li nga xamante ni moom la ñuy waxal général Moussa Fall nee na nag moom moomee bu ñëwaatee si chronique yi nga xamante ni moom la daan def dana ñëwaat ak beneen façon boo xamante ni bokkul ak façon bañ ko xamee woon ndax nag dañu ëlbatikuwaat si beneen camp ba nga xamante ni fa la féete woon maanaam dañu jouer contre son camp mu nekk nag loo xamante nii nag mosuñ ko dégg fenn foo xamante ni journaliste Walfadjri yi moo fa nekkoon di yëngu kon moom mii nag maanaam am mbetteel bu rëy rëy rëy la indi ñi nga xamante ni ñooy téléspectateurs yi nga xamante ni ñooy faral di seetaan rajo télévision Walfadjri yi wala sax di déglu rajo bi.